mbokki Touba marché Ocass waa daayira Nuuru Daarayni Touba ca kanam ci njiitul sëriñ Habibullahi ibnu Cheikh Mahamadul Fadal ànd ak mboolem membre Touba ci kanam ci njiitul sëriñ Abdul Fatah Gueye ñoo ngi yëkkati kàddu yu nuyoo yu sell di ko jëmewaat ci yéen te mooy jëmewaat ko ci boppam ndax nee na lii nga xam ne moo dal ci kaw waa marché Ocass ci kaw daayira nooru daaray ni Touba ci kanam la dal ndax mbooleem cantine bu fi lakk wala mbaar mu fi lakk membre Touba ca kanam moo ko lakkale kon day mel ne lakk gi lépp ci kaw Touba ci kanam rekk la dal rawatina nag bi nga xam ne daayira bii léppam mi ngi jëm ci suufus Touba ak niti Touba te lii dal ci suufus Touba dal ci niti Touba loolu moo tax Serigne Abibou ànd ak délégation bi ñëw fas yéene àndak ak bokkak bokk yéen tiis wi. ni ñu xamee Sénégal ni ñuy doxee xam nañ ne massa li leen dal metti na li ñu koy dégg Sénégal bari na. Sénégal réew mu bari massa la lu tax loolu mooy li fii am ci ay jëya ñaare bu amee danañ defalante maslahante waaye duñ ci jàngat duñ ci tiré ay conclusion duñ ci def ay joyante yoo xam ne dana tax bu ëllëgee ñu mucc ci lu nu mel. ndax marché bii du tey la njëkk a lakk marché yeneen yi ci def du tey la njëkk a amuk lakk xëy na bii day bi ci gën a metti waaye nag jàppees na ne bii yoon buñ ci jógee danañ defaat ay jàngat danañu waxtaan danañ defi joyanti foofu nag li ciy ëpp solo bu ñu bëggee mu doon loo xam ne luy am njariñ la mooy lu ñu fi mën a def xalaat yu ñu fi mën a teg nañu fexe ba bu ñu koy def ak di ko teg ñu ànd kook ñu ko bokk ñëpp ñu ko séq ñu waxtaanee ko ndax aw nit boo leen bëggee jëlal décision te doo leen ca boole leneen loo jël danga nga jàppal ne da leen di contre waaye defaru la leen kon bala ñoo jël benn décision ak bu mën a doon nañ ci séq waxtaan ak ñi ko séq ñëpp ba ci marchand ambulant yi nga xam ne ñi gën a looru ci mbir mi ci la ñu bokk dañu leen bàyyi xel faw dañoo war a am volonte am pas-pasu jóge fi nu ne tuxoo fi jëm fu ko gën ndax kat wolof day wax ne euh, bopp bu rëy tey metti bu tuuti te sedd ko gën marché bi ku nekk xam ne ne bopp bu rëy la woon waaye da doon métti nag kon jubbanti ko joyanti ko defar ko day lu mënta ñàkk day lu mënta ñàkk te dañ ko war a xam dañ ko war a nangu eh, di jeexale nag ci ne man mii di wax nga xam ne maay président association Touba ca kanam li ma koy wax bariwul maay donga bi eh, ba noppi bokkaat ci mbir mii xel yu bari danañ xalaat ne waaw Touba ca kanam ci nan la ko war a jàppalee ñu baree bari ñu ngi koy wax ñenn ñaa ngi koy laaj ñenn ñaa koy wax ci kaw di ko wax ci suuf man ñi nga xam ne jot nañ cee wax man Touba kanam nag waxagu ci waxtaan woo xam ne dañoo dajee ñoom ci seen bopp waxtaan ci waaye benn yi koy wax ba mu agsi ci man li ma leen wax mooy Touba ca kanam alali ñëpp li xew ci ñëpp la dalandoo tey Touba ca kanam ba muy doo a jóg li ñu waxoon mooy dajale alal yi liggéeyale ko sëriñ bi ci dëkk bi loola nañ ci wéy ndax lii am natt la bu fi jaar na njëkk yu fii te mujj ci te bis buñ ci seppee kenn di ko ca dimbali mën naa yàq yoon wi ñu tegoon di ci dox loolu ëpp naa xalaat kon nañu wéy dox rek te wàkkirlu ci yàlla te doyloo sëriñ bi. Touba Ca Kanam nag taxaw na ngir accompagner leen ci lii waaye ci anamuk ànd ko ak yéen ci kaw njëkk a tàmbale ci fexe ba lu ni mel dootul am incha allah ndax loolu moo ci gën di farata ak fexe ba lii nga xam ne nii moo xew ñi mu dal ci seen kaw mu woyof tooy ci ñoom loolu nag mi ngi ko fas yéenee def ci ay xalaat waaye ak ci dox ak wax ak jëf. te fas ko yéene ànd ak yéen ba genn juyoo du ci am Abdou Fatah mi ngi ci biir mbooleem ñi yàqule mi ngi ci biir Touba ca kanam su fekkoon ne doonu ci dara it bu ñuy ñëw ci délégation bi noog moom nooy ànd bi mu ci doonee dara itam nga xam ne ci ci gën a la bokk noo ànd ci kër Sëñ Abi bu ñëw fii kon dana nu mën a représenté ci biir mbooloo mooma lépp luñ fa xalaate ak luñ fa nose ak luy tax mu jàpp ne euh, bu ñu ko defee mbir mu ne mel dootul am te dana indi ak yokkute ak kaaraange ci biir marché bi bu dee wax la bu dee lu ñuy def la bu dee lu mu mën a doon pare nañ pour ànd ko ak yéen incha allahu taala ndax loolu mooy taxawaayu Touba ci kanam ci dëkk bi. loolu itam mooy taxawu Touba ci kanam taxawaayu Touba ci kanam ci marché bi ndax ku ne Touba xam nga lan la fi marché Ocass di représenté. ci wàllu économie ak mbooloom dëkk bi ak njabootu sëñ Touba gi fi nekk te di fi yëngutoo kon daal ci ëpp tënk loolu mooy l'essentiel bi li nga xam ne moom la ñu sëñ bi yónni woon ci ay tànkam ak ci taxawaay ak ci teewaayam ak teewaayu jëwriñ yëpp. fas nañ yéene daal ubbi suñuy bunt ubbi suñuy nopp di déglu ak ànd ak yéen ci biir lii bañ waxtaan ba tënk xoola ndoone marché bi kat lii buñ ko ci defee incha allahu lu ni mel mënati naa bañ a am lii itam buñ ko defee ñi nga xam ne amoon nañ ciy jafe-jafe ku ci delluwaatu ba yokk fa nga nekkoon itam fam la fekkoon itam dara du yées ca la nga amoon. incha allah pare nañ pour ànd koog yéen ci lépp waaye fas ko yéene togg ba mu ñor ci ay xalaat ak dox ak wax ba nga xam ne buñ ko defee la ñuy def dana am njëriñ incha allahu taala